lancement du projet des dix villes dans la ville de Saint-Louis. fukki dëkk ci Sénégal war faa def 60 milliards ñu def fa assainissement te Pikine bokkoon ci. Pikine qui connaît de gros problèmes d'assainissement. programme d'assainissement de dix villes ci atum 2017 office national de l' assainissement taxawal ab projet ngir dakkal mbënd mi nga xam ni sonal na askanu Sénégal ca noonu lañ taxawalee lu ñu duppee programme d' assainissement de ca fukki gox yooyee ndakaaru bokk na ca Saint-Louis Pikine Louga Rufisque Tivaouane Matam Kaolack Tambacounda ak Touba. plan boobee kooku amal di directeur général bu ONAS ba woon Lassana Gagny Sakho ñu koy gis ci image ñu jële ci Saint-Louis. Pikine va être touché Guenda va être touché Ndiolofène va être je pense une avancée significative qui correspond à la vision de son excellence le président Macky wante at ginnaaw loolu jafe-jafe bi di wëy mbënn mi di gën a takkarnaase ci gox yi nga xam ni war nañ fa amal programme bu ni mel. ci atum 2024 premier ministre Ousmane Sonko di fësal njaxleem jëm ci benn ci gox yooyu te du benn bu mooy Saint-Louis. il fallait ñu def fii benn station d'épuration lan moo tax ba tey station boobu tabaxuñ ko. nee ñu xaalis bi sey na dem yoonam nañ ñu wax 60 milliards yooyu fan la ko gars yi dugal. loolee tax ñuy samp laaj naan ndax ki fi nekk jamono ji président bu conseil d' administration bu APIX géré na bu baax programme boobee ndax dafa laale ci mbirum détournement bi premier ministre di lamlaame jamono ji ngir am liñ ci leer ñu jël ndogal woo ko moom nday mbili mi. allo oui. allo oui bonsoir. oui bonsoir. Euh, monsieur Lansana Gagne Sakho. Oui. Par Gay, journaliste à la CTV. Oui, ça va. Oui, ça va. Et vous, comment allez-vous Ça va, merci. Super. wante mu lànk ni ñu tontu ci suñu laaj. je ne souhaite pas en parler monsieur. hein. je ne souhaite pas en parler. Ah, vous ne souhaitez pas en parler. non. ba noppi daal di coupé. lii ndax day firndeel ni moo def liñ koy jiiñ. lu ci mun di doon Lansana Gagny Sakho ñu tabb ko bu yàggul dara PCA bu agence de promotion des investissements war naa indi ay tontu ci anam bi nga xam ni noonu la gérer programme d'assainissement des dix villes noonee nga xam ni la ko premier ministre Ousmane ko daal di laajee foofee ca Saint-Louis